waxtaan wi lu bari ci li war a tàmbalee sëñ Abo da koo wax muy weer wi nga xam ne tàbbi nañ ci te muy weer woo xam ni mooy weeru alquran weer woo xam ni mooy weeru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam weer woo xam ni mooy weeru Sëriñ Tuubaa mu bëggoon ko lool fonkoon ko lool daan ko taxawee taxawee woo xam ni yéemoon na ñëpp yéemoon na àdduna bépp yéemoon na gan ña fa daan ñëw gan ñu bari dañ ko daan waral si bàyyi ko gànnaar di bàyyi ko fu ne waaye taxawaayam ci weeru koor ñëpp dañ ko daan yóbbaale seen ji di ko waxtaane muy lu yéeme yéemoo nit ñi mu yaroon ñu nekk ca kanamam nekk ca wetam daan ko liggéey dem ba yëf yi dépensé leen ba egg ci yéem leen yéem goo xam ne day mel ne mosuñoo gis lu mel nii ndax Sëriñ Tuubaa dundam lépp xar baax la woon ñi ko waroon li ñu koy miin miin bis bu set ñu gis lu bees bis bu set ñu gis lu bees loo xam ne daleen di yéem dinañ di fàttaloo la woon démb li mu woon ni mu noon kulliyati mu'jizatun loola mooy li am maanaam bis bu ne dana feeñal lu bees loo xam ni dañuy yëm ñëpp dana lottal ñëpp noonu la ko yàlla bindee woon euh, yàlla na ko yàlla fayal ci kattanu borom bi mu mel ne kon bis weer wii bu ñu ci waxtaan day mel ne waxtaan wi ci gën a am solo gën ci am sens mooy waxtaane li ñuy dund booy waxtaane li wees man naa am dana am ku mu yitteelut booy waxtaane li ñëwagut mën naa am dana am koo xam ne xamut li ngay wax ndax gisagu ko waaye actualité li ñu toll di ko dund bu ci waxtaan ku ne dana la déglu kon loolu moo tax waxtaan bi tey ci eh, ci saw mu rek lañ koy tarkiis ci koor rek lañ koy lañ koy def incha allahu taala ni ko sëñ Abou waxee lépp incha allah liñ ci mën lépp xam naa sax tënkaat na yu bari yoo xam ni eh, sama xam-xam yeggu ca waaye danañ ci def kéem tolluwaayal suñu kàttan incha allahu taala mu mel ne kon koor koor woor ci boppam la ñuy waxtaane woor nag a sawmu a sawmu baat bi rek li muy tekki luxatan mooy jàpp sa bopp ci dara lépp loo xam ne téye nga ca sa bopp defoo ko rek woor nga ca looloo indi na inni nazartu lirrahmani sawman fa nukallima al yawma insiyan sayyidatuna Maryama ba ko ma dikkalee ba mu am gone ci kàttanu sunu boroom amul dara lu mu mën a wax ndax mënu koo layal mu ne tey daal niséer naa duma wax ak kenn damay noppi inni nazartu lirrahmani sawman nazir naa noppi du ma wax ak kenn falan ukallima al yawma insiyan du ma wax ak tey kenn nit ah ñu ñëw di ko laaj muy joxoñ liir bi ñu naa ko kayfa kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyan naka la ñuy waxee ko liir bu nekk ci berceau liir ba daal di jël kaddu ga tontul bopp waaye moom la mu waxoon inni nazartu lirrahmani sawman tere ne tontuwul kenn waxul ak kenn te bis ba lépp loolu mooy tekki ne saw sawmu li muy tekki mooy téye sa bopp ci dara rek lépp loo xam ni téye nga ca sa bopp ba defoo ko rek loolu sama woor nga ca loolu lay tekki lu ko tan fiq yi yan nag ci fuqahaa yi ñoo wax ni koor mooy bañ a bañ a naan bàyyi muftaraat yi bàyyi yi nga xam ne ñooy dog koor bàyyi ko li tàmbalee fi fajar feqe ba fi jant bi soye soo ko bàyyee rek yépp yow woor nga ay dal fuqaha woor nga bu fekkee bàyyi nga mboolem yi nga xam ne moom la ñuy tere mooy dog koor li ko tàmbalee bi fajar feqi ba jant bi so soo ko defee rek woor nga ci ñoom ñoom lijjanteetuñ ca leneen fi fajar feqi nag waxuñu ngay lekk di lekk lekk ba fajar feq waaye lu ko jege jege jege fekk fekkul sañ ngaa lekk même une minute même ay seconde bu ko jegee sañ ngaa lekk boo gisee ñu naan nañ bàyyi juróomi minute nañ bàyyi nangam it bëgg lu gën a wóor nga bañ caa tab bi loolu rek la waaye soo ko mënoon a xam man ngay lekk di lekk ba ca seconde bu mujj ba waaw di di di bu ko defee loolu mooy waxtoom fi fajal fekk rek mooy waxtoom na boo dee sikki sàkk sax maliki moom nanguwu waaye yeneen message yi am nañ ko nangu boo même boo doon sikki sàkk man ngay lekk ba mu wóor la même boo doon sikki sàkk man ngay lekk ba mu wóor la di ah, fajal jot na rek dana booy sikki sàkk nag sañatu ko fekk ndax loolu moo gën a wóor loolu mooy koor ku fajar feqe ba jant bi feeñ ba jant bi so ba boo fi bàyyee muftaraat yi rek yow yaa ngi ko yaa ci koor bu ko defee nag indal muhaqiqiina nag kooku nag moom day am yeneen yuy ñëw yoo xam ni mooy tax nga nga sa koor tudd koor te loolu nag ci la sëñ Tuubaa jàngale dëgg-dëgg euh, yooyu guddikul fuqahaa ñoom tudd nañ la saayim waaye mu muhaqiqoona ñoom tuddewuñ saa saayim ñoom dañ ñu wóoroo bu yooyu dikkut ñoom dañ ñuy wóolu même boo defee lii bu yooyu dikkut dañ ñuy kon mu mel ne ñetti mbir la yoo xam ni dañ leen di boole nag muy benn ndax bu njëkk bi moom day dugg ci bu ñaareel bi waaye bu ñaareel bi soxla bu ñetteel moo koy soxla bu njëkk bi day dugg ci bu ñaareel bi waaye bu ñaareel bi moom mooy soxla bu ñetteel bi bu ko defee mu booloo di benn di ak koor gi nga xam ni moom la ñu soxla moom la foqaa yi soxla moom la muhaqiqoon yi soxla moom la ñu bëgg a waxtaane tey ak ni nga xam ne ni la ko Sëñ Tuubaa eh, waxtaane jàngalee mu nekk nag kon ruknu min arkaanil islaam dañ ci ñëw ci xadis bi di farata boo xam ni ci alquraanul ak ci sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ijmaa ulama alquraanul karim suñu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون yéen ñi nga xam ne yéen a gëm waral nañu ci yéen koor ni nga xam ne lañ ko warale ci ñi leen jiitu woon ndax leen ngeen am ragal yàlla la'allakum tattaqun dañ ko soxla ci kanam euh, daal di wax ne shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaas wa bayinatin min alhuda walfurqan fa man shahida minkum alshahra falyasumhu woor a ngi weer a ngi nii wu ñuy tudde weeru ramadan woo xamante ni teel wàcce alquranul karim ngir mu leer la nit ñi ngir mu jàngal leen ngir mu biralal leen koo ca xam ne fekk nga ci weer na nga ko woor muy nastu ci alquran nassan waadixan boo xam ne soxlawul beneen wax soxlawul euh, commentaire ak yeneen aay yu bari yu tegtal ne koor waajib la bu ñëwee ci sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu leeralal ñu li nga xam ni moom la alquran andi ndax moom loolu la ñëw li tubayyina laa na wàcceel alquran li tubayyina linnaas kon moom dafa ñëw ngir di firul alquran andi lu wax boppam waxam lépp ñu ngi ci alquran ndax addis lépp alquran koy firi moom mu wax ni buniyal islaamu ala xamsin shahaadati an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaah wa itaai zakaa wa sawmi ramadaan wa hajjil bayti kon sawmu ramadaan lii ñu bëgg a waxtaan tey mooy ñeenteelu ponk ci lislaam ci hadiis ba mooy ñeenteelu ponk ci lislaam ci hadiis ba ponk yooyu nag benn boo ci weddi duutoo ak jullit benn boo ci weddi duutoo ak jullit noonu la ñu foore noonu la ñu leneen lu ma doon ci lislaam boo ko weddi woon danañ gëstu sa jullit waaye benn ci moom boo ko weddi woon te saa sa la lislaam dara loolu tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba mu wonee gannaaw am ñu weddi asaka Seydina Abubakar dafa dal ci seen kaw xeex ñoom rey ca lu bari ñu rey ci jullit ñu bari ba ñu wëlbati ko waat mu soog leen ba te dañu woon feeg dellu suñu duma leen ba dootu islaam nga xam ni ko benn ci ponk yi déedéet bisu ko xooyee benn bu ci nekk rek noonu daraja boobu la yor boo koy bàyyi rek islam di dal sa ko boo koy weddi boo koy weddi wax boo koy weddi rek islam di dal sa kaw kon boobu it aj sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa la ñu xamee la ni alquran maanaam wooru koor woor ko xam ni amul kenn kenn kenn ci borom xam-xami diine ba àdduna ba lislaam ñu wàccee ba fii nu toog ku weddi ku weddi ku weddi ne euh, koor farata la suba yoratul seentu weeru koor dugg dugg na bu bët satee ñu woor euh, kon loolu dafa wax nag ni bu ngeen amee juróom-ñeenti ñaar fukk nag juróom-ñeenti di séentu suumu li ru'yati wóor leen bu ngeen ko gisee wa aftaru li ru'yati dog leen bu ngeen ko gisee ca koor ga fa in xumma aleykum su leen demee ci yéen nag fa atmilu sha'baana salaasin mottali leen sha'baana muy fanweer foofu nag fu am solo la ndax foo coow dafay bari te amul coow seytaane bari doole waaye solution la boo xam yonent bi rek na ko ba noppi ndax weer moom mi ngi ci asamaan si booy calcul waxtu wu nekk da nga xam kañ lay génn waaye kenn calcul loo mën li nga def loolu mooy séentu borom xam-xam yu bees yu bari léegi d'accord nañ ci calcul yu bari yu bari léegi du ñu séentu ci sax yàlla ci ci ci calcul rek la ñuy waaye loolu dàqoo naag dàqoonte naag ci sunu gis-gis kenn ku ne ak sunu gis-gis sunu gis-gis man dàqoonte naag la yonent bi waxoon ndax yonent bi waxul lijjantiwul woon feeñ nga lijjantiwul woon mu ngi ci asamaan sa dana woon feeñ xumma su leen gis loolu mooy mën naa am ci asamaan ci mën naa am nekku ci waaye comme lëndëm na bi gisul ko rek bàyyi ba suba loolu léegi loolu solution bu leer nañ li la léegi nag kon bu fekkee ñu ngi jéem a génn yenn solution di sukkandiku ci ay biddiw te ñooñu yonent bi weddi woon na leen ca saasa ndax nee ne woon kasabal mën a ji moom ñu ne woon kese ba mën a jëmoon ñuy sukkandiku ci bidiw dañuy fen xam comme dañ naan ne xamoon na lii ba weddi leen waaye teewoon ñaar yooyu yëpp teg nañ ko fee du sukkandiku ci bidiw du sukkandiku ci appareil du ci yeneen xam-xam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nanguwul woon ku yëg ci kaw doj di seddu weer nanguwul woon yëg ci kaw doj rek te Makka ko xam na ni montagne yu kawe la woon Makka ci pax lañ dëkkoon waaye daal boo xam ñu taxaw fii ñuy dund fi la taxaw séntu waaye mës na nangu kuy yéeg ci kaw doj ngir séentu yaa kon te ko xam ne ni booba euh, màkk montagne yu kowee ca ne xam ne ku ci yéegoon di séentu mën naa am nga seen weer wax ni suuf duñ ko seen waaye nanguwu ko nanguwu yéeg ci kaw weer ko kaw de ak xeer aw doj di séentu weer waaye ki nanguwul woon loolu nag nangu leen kon nun euh, loolu mooy tax loolu noonu kenn du la ci dugg noonu ndigalu Sëriñ Tuubaa rek ci la ñuy sukkandiku te sëñ Tuubaa foofu rek ci la sukkandiku te sëñ Tuubaa lépp lu muy doxam xam na bu dee biddiw moo ko gën a xam ku ndax maam Thierno ma mu yàlla moo ci raw ku dul ko jàngal kon sëñ bu dee biddiw moo ko gën a xam ku dul moom bu ko aajo woon euh, addis bi nangu ko moo koy gën a def ku moom ndax moom nee na addis bu wér xam naa ko te dundal addis yi moo ko yàndi addis bu wér xam naa ko te dundal sunna moo fi yàndi kon addis su sukkandiku ca leneen bu wéroon moo koy njëkk a waaye nanguwu ko dañu woon maa ngi bàyyi leen seen coowul weer waaye bu boobaa na ngeen sol li nopp tafal bët waaw dégg naa weer wi feeñ na déedéet gis rek waaw gis nag man nga koo gis fi ngeen ne yow ku la doy mën na koo gis ku la doy sax mën na koo gisee ci beneen dëkk waaw bu fekkente ni mataale yi wuute wut ixtilaafu mataale nag am nañu koy itibaar waaye nun itibaaruñu ko ixtilaafu mataale moom ixtilaafu mataale moom itibaaruñu ko nun euh, euh, euh, soon yi nga xam ni ñoo ñoo ñoo bokk matla yooyu daal fu mu fi feeñe te wóor nu dananu dananu woor dananu wari soon yi nga xam ne bokkul génn nañ sunu matla du ñu sukkandiku ci seen wax ndax sëriñ Sall mas na ma ni Sayyidina Abdullah ibn Abbas mas naa yónni ndawam xaw ma fan ba mu ñibbisee ne ko nun day ca njàlbeen goor ga gisoon nañ ko ca bis bis sàngam mu ne ko les naa fi xutratin waahida loolu ci sëriñ la mu ñu sëriñ Saal bi daa ko dégg les naa fi xutratin waahida loolu rek la ko tontu bokkuñu benn box kon loolu day tekki ne eh, eh, ixtilaafu mataali mataali sunni yuune yi am sunna dëgg-dëgg danañ ko danañ sàmm danañ sàmmanteeku léegi nag gaa ñi nee nañ weer bu feeñoon ca Inde waa Sénégal dañoo war a woor loolu noonu gëmuñu ko te duñ ko def kenn nit ci dugal noonu daal mooy gisal suñu bopp wala kono doy gis ci suñu mat la ñu soog a woor kon jamono yooyu la koor di war bu fekkente koor sax na ni euh, weeru koor sax na ni feeñ na ci nii bu boobaa nag euh, ku ne war a woor keroog lay war ci muy warit mooy mu kàllaf mu amul ngànt mu kàllaf mu amul ngànt moo xam góor la moo xam jigéen la kooku amul wenn lay kooku la war mu war koo defee noonu bu ko defee nag euh, sàmmoon teeg yi nga xam ni mooy muftaraat yi ba bëccëg bi jeex bu boobaa ba wóor nga indal fuqaha ni ma ko waxee waaye indal muhaqqiqiina nag ci la Sëriñ Tuubaa jàngale dëgg-dëgg ndax fekk na moom jàngal nañu ko nii ko fuqaha yi jàngale ci téere yi mu taalif boo demee ci di saxaar ma nga ca boo demee ci na fis nga ca téere bu mu taalif ma nga kon ni ko fuqaha yi jàngale jàngaleen nañu ko ci mu leer nañu comme nii ma ko waxee waaye nag da cee jàngale jàngale boppam moo xam ni mooy li ci gën a yitteel dafa wax ne boo xam ne yow mii nga xam ne xam nga ni woor lii la ba yaa ngi ciy sóobu na nga yëg nag ni koor nag tëkkuwul ci lii ñu la wax dong amma siyaamu fa huwa min afdali ma talabta mardaatin bihi wa niama koor na nga yëg ni bokk na ci yi gën ci li ngay sàkku ngërëmul yàlla yi féete kaw ci li ngay sàkku ngërëmul yàlla ci la bokk li anna fi ljannati baaban laa yaqib fihi siwa ahli siyaami nee na am na ci àjjana bis boo xam bunt boo xam ne kenn du ci tàbbi kudul waa koor foofu nag sax am na parenthèse bu tuuti ma ci dugg xam nga parenthèse lañ koy wax xam ah, loo xam ne dafay gaar rek eh, dama mos a dégg ci mag mu sëñ ma Lamine Yar ñu di ko wax góor gi ma jëm ñang moom nelaw na mu ni ma mas na ma dégg ci sa baay mu toog ma toog ci moom muy waxtaan mu ni ma sëñ Tuubaa dama toog ci wetam mu di may liggéey bu yàgg mu ne ma mu Lamine jox ma ndab lee ba fab ndab li teg ci kanamam mu ne ko jox ma peñ bee ba fab peñ bi jox ko sëñ Tuubaa fab kaas di ko tojal boppam ma ne toj loowuma ko maa ngi toog waaye boppam moo koy tojal boppam di ko tojal boppam ba mu def ay doon ji mu soxla mu ne ko demal wool ma gone gi nee na ma dem woo gone yu bari ñu ñëw mu di leen ko jox benn par benn di leen ko jox benn par benn ba mu jeex mu ne Mouhamadou Lamine maa ne ko maa ne ko Mbàkke inna fi ljannati baaban la yuqaalu lahu rayyaan laa yadxuluhu illa mufarrax sibiyaan nga xam ni eh, eh, nee na Sëñ Tuubaa lisaanul arabam bu ko la masaan di wax doo bëgg mu noppi day neex a neex ba doo xaw a xam li muy wax Mouhamadou Lamine ma ne ko Mbàkke mu ne ma inna fi ban jannati baaban yuqaalu lahu rayyaan laa yadxuluhu illaa mufarrixu sibyaan àjjana bunta nga ca bu ñu wax rayyaan kenn du ca dugg ku dul kuy bégali gone naa ah, secret boobu la sëriñ Saaliw waxoon moom xam ne lépp Sëriñ Tuubaa waaw mu ko defee mu mel ne bu ko defee mu mel ne mu daal di wax ne summa siyaamu fantabih lam yanxasir fi aadamil akali faqat laa taqtadi nee na koor na nga yëg ni su ajuwul rek takkuwul dong ci ñàkk a lekk rek déedéet bul waru bul defee mukk ne boo wóoru boo lekkoo naanoo sa yow defoo benn lu yàq koor ba ba ba ba ba ba jant bi rek rek woor nga déedéet nee tëkkuwul foofu déedéet non nee tëkkuwul foofu nee na gan ko na may wooree nag mu ne am si àndi nazar da ngay téye sa bët ba du xool lu xaraam téye sa tànk ba du dox lu xaraam téye sa nopp ba du dégg lu xaraam téye sa biir ba doo ca def lu xaraam sa cër yëpp woor benn bu nekk ni biir bi woore noonu lay woore ndax ku ne am nga lu lay dundal nopp dégg koy dundal nopp rek bu dégg bu déggatul dee na waaye li muy dundee nag fexeel ba jox ko ci lu dagan waaye lépp loo xaraam bu ko ko ci jox bët xoole koy dundal bu xoolatul dee na léegi li muy dundee rek fexeel ba jox ko ci lu dagan loo xam ni eh, eh, eh, lu xaraam du ci am soo ko ci joxee lu xaraam rek daal yàq nga koor bi cër yëpp nag noonu la benn bu ci nekk la muy dundee tànnal ko ca la dagan jox ko ca la xaraam nga fexe ba bu mu ko laal nee na soo defee loolu boole koog nee bu ngoon jotee woor nga yow yaa ngi ci woor yàlla soxla wooram waaye nag teg ci it nag wala tukassiri suxuura nee nag bul bàyyi xëdd bi nag mel ne ab njaayeen tëddim xëdd bi di lekk di lekk di lekk bay appaat nee na déedéet bu ko def wala futuura booy ndog booy ndogu ndogul li bul tim ndogu li di lekk di lekk lekk bay à part loolu nee na bu ko def moom tali albatni feesal te biir del aku ñam ak ndox fa taxaramal ujur da lay xaj yool bi loolu day wàññi yoolu kor nee na loolu bu ko def bokkul ci koor ndax wa kullu man am la abatnahu taam képp koo xam ne feeñal na feesal ne biiram aku ñam ci koor wa aksara surba alayhi naan ndox mu bari teg ci wal manaam tëdd di nelaw te loolu loolu dong moo fi nekk léegi nee na fa innahu maal bay maal bay ma si sawaa nee na kooku moog bàyyi ma yi ñoo yem lekk ba sa biir fees naan ndox mu bari tëdd di nelaw soo ko defee ci koor nee na yàgg bàyyi ma yi yéen a yem es ngir faatahu xayrun kasirun nee na yiw yu baree baree bari faat na la fatawa loolu nag da lay jural alkane loolu kon baaxut wa baaduhum yaakulu akla albaqira waxta futuurihi wa waxta saxara ñenn ñi dañuy lekk na nag wuy lekk jamono bi nga xam ne ci la ñuy na dog ak ci la ñuy naan loolu bu boobaa dañ koy day day wàññi yoolu koor xataa yakuuna batnuhu mataqila jiddan fa saara qalbuhu mashgula an zikri rabbihi wa yaddaci siyaamahu wala yaxwi fatilan fi lqiyam nee na lekk ba rek naan ba man li ba doppi di bay apart de tëdd di nelaw di woote ne yaa ngi woor nee na bu boobaa day mujj sab xol duutu soxla woo tudd yàlla ndax day wow ab xel rek gaa yi da koy wowal nee na boo demee nag ba sab soxla sab xol soxla wootul tudd yàlla ndax tanu ko ngay woote ne da ngaa woor nee na sa koor googee doo ca am lu toll ne fatil lu tuutee tuute la ci dong tàndarma nee na doo ko ci am sa sa koor googee kon tam ñu mat a bàyyi xel la ndax ñu bari defe nañ ni boo wooree ba ngoon jot rek da ngaa war a li nga la li nga raw le woon lépp loolu baaxul sa ci wér gu yaram baaxul ci wér gu yaram baaxul ci ci koor gi azana allahu min al gururi yàlla na yàlla musal ci waru wa kulli ma yadurru fi dóor ak lépp luy lor li mu tënk ci li mu kii ci ci ci mel nii lii mooy li ci ëpp solo waaye bari na loolu tax nag mu mujjee ko yàlla na yàlla musal mu jël ci waru musal ci waru waru mooy dugg ci mbir di woote ne bokk nga ca fekk bokkoo ca waaw maanaam di woote yaa ngi woor fekk ndeke wóoroo bu ñu fay woor koo woor ko de boo ñëwee doo am dara loolu mooy waru ne loolu yàlla na ci yàlla musal loolu nag ci ci ci ci sàmmonte wu léegi yii kooku lay def kon mu mel ne koor ci ni mu nekkee fiqiyan ak ni mu nekkee haqiqiyan sëriñ bi jàngale na ko euh, bu ko defee kon ngëneelu koor nu ñëw tënk tuuti ci ngëneelu koor ndax wax wi waxtu wi tam dafa dafa kii dafa gàtt ñëw tënk tuuti tam ci ngëneelu koor euh, xadis ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni kullu amali ibni aadama lahu illa siyam fa innahu li waana ajzi bi nee na jëf yi doomu aadama jëpp moo ko moomal boppam ba mu des koor koor moom maa ko moom maa koy fayal sama loolu rek wane na dayoo ko muy julli muy aj màkka muy lu mu doon ba doomu aadama lañ koy bàyyi. maa koy fayal sama bopp loolu kon joxe na day dayoo koor dayoo boo xam nga ne loo xam ni ku ne war na ko tee xam ne ndax wasiyaa bu junna ndax nee na koor défense la pakk la mooy liy dox sa digg lépp lu lay la défense la fa ida kaana sawmu yawmi yawmi ahadikum fala yarfus wala yasxab wala yajhal fa in saatamahu ahadan aw qaatalahu falyaqul inni saaimun inni saaimun hadis ba ku ci nekk ci koor ci yéen nee na bu mu caaxaan bu mu soow bu mu def ak su nit ñëwoon di ŋàññanteeg moom wala muy waxante mu luul loolu wala mu bëgg a xeex ak moom na ko ni inni saaimun man damaa woor wax ko ko ñaari yoon man damaa woor ndax jamono bi nit ki jëm si ci yow àndaale loolu seytaane nga ànd ak moom ndax ndawul seytaane la bëgg rek buntu bëgg rek lu am ci yow doonte un pour cent la woo koor gi bëgg na ko ci sooy tontu kenn di ko may dara moo tax ma ne bul ko tontu dara dul inni saayim ak lu mu mën a wax ak lu mu mën a def ak sest yu mu mën a def ak bu la doon dóor nee ko man inni saayim inni saayim bu ko defee seytaane du am ci sa koor un pour waaye boo koy tontu seytaane day am dara ci yow ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni sunu borom nee na soppiku gémmiñu aji woor ji moo gën a teey fa yàlla nga xetuk misk ñàkk gi nga ñàkk a lekk ñàkk naan loolu day woy dafa wanti mën naa sëpp xet gi nee na xet googu moo gënal yàlla xetuk misk kon loolu mooy wane ni koor am na daraja am na daraja bu koy boo xamante ni bii leneen amu ko yettalu ko wa saraba ndax dafa bàyyi ak lekkam ak naanam wa sax watoo bàyyi bànnee xam min aj lii looloo tax man maa moom koor gi te lépp lu ci ajoog lu mu ko yóbbu lu mu ko yóbbu dama koy nangu bokk na ci ngëneeli koor itam day ràmme day ràmme bu fekkee woor nga koor gu mel ni gii nga xam ni moom lañ bëgg koor googu da day ràmm te xadis ba dani asiyaamu wal quraan yusaffaani lil abdi ah, yowma yowma alqiyamati alquran ak koor dañ leen di ràmmloo jàmm bi yowmal xiyam nee na koor danaan ay rabbi ay sama boroom manaatuhu taama wa sahawaat binnahaar fa safiani fii sa jaam bii day tere naa ko lekk tere naa ko naan tere naa ko bànneex ci bëccëg bi mu nangu ko kon nag tin ma ci waaye alquran ne ay rabbi manaatuhu nawma fi leyli fa safirnii fii sama borom sa jaam bii tere naa ko nelaw guddi mu nangul ma ko kon nag tin ma ci fa yu saffa aani fi l abdi ñu daal leen di tin ci jaam kon koor loolu rek jar dëkke ko kon euh, euh, euh, foo gis fuy dëkke koor jàppal rekk ni kooku jëlee nañ ci saxaaba bu ñuy wax abi umamata mu wax ne dikke bi salallahu alayhi wa sallam ne ko digal ma jëf joo xam ni bu ma koy def damay tàbbal aljanna mu ne ko fa alayka bi siyaam dénk naa la ko nee na ma dellu siwaat beneen wax ko ko mu ne fa alayka bi siyaami fa innahu laa dénk naa la koor nga saal ko koor amul luñ koy loo xam ni boko ko boo ko bëggee xam ci wolof fabal po bi teg fii fab liggéey def fii bu dee kilo saa soo defee fii kilo rek ñu daal di màndaxoo koor nag amut loolu boo ko tegoon ci balaas amut loo mën a teg fii ba ñu màndaxoo mooy laa idda la law kon koor rëy na foor na kon kenn ku nekk boo ci sóobu na la jaral mm, coono boo ci mën a dem na la ko daral ngir sa koor nga mën a am koor gu mel nii koor gu mel nii nag lii sëñ Tuubaa jàngale moo koy moo koy am daal wax ne inna inna lil jannati baaban yuqaalu lahu rayyaan waxu la dëgg wax jooju ma ñu ko wax dëgg laa yadxuluha illa saaimuun yuqaamu yuqaalu yowma alqiyaamati ayna saaimuun fa ida daxala axiruhum uxliqa dalika albaab nee na baab benn ngi ci àjjana boo xam ne rayyaan lañ koy wax kenn du fa dugg ku dul woor su yowmal xiyaamee su sunu borom day taxawloo ñu muy taxawloo ci bunt ba ñuy woote ana waa ko ana ñu doon woor ñuy ñëw di dugg di dugg ba ku mujj ko dugg ñu tëj bunt ba kenn kuy dugg àjjana ca beneen bunt ngay dugge waaye du bii kon loolu jar na dëkke koor kon nan fonk koor te fexe bu mel ni koor gi nga xam ni moom la sëriñ bi jàngale euh, xadis ba dellu wax ni nawmu saa'imi ibaada ci koor dëgg-dëgg koor bu tëddee di nelaw mi ngi ci jaamu yàlla kon nelaw yam doon tere bokkute yii nelaw yam doon tere mooy ka lekk ba rek naan ba di ba mënatul a taxaw gëmmentu doomu mu tëdd di nelaw kooka yooya nelaw waxu ko nelaw yu wax mooy ki koor koor gu mel ni gii ñu wax di lekk tuuti di naan di lekk lu yem di naan lu yem samonte gi yëpp ba digg bëccëg bi koor jàpp na nga tëdd di nelaw sa koor googee ak jaamu yàlla la nawmu saa'imi ibaada wa sumtuhu tasbiix nee na noppeem nga it ak sabaat la boo dee tudd yàlla ñu lay fay waaye boo ci bind continuer di bind yaa ngi sax boo ne sell nit kii bind continuer di bind ne yaa ngi sabbaan eh, wa amaluhu mudaaf nee na loo def ci lu baax dañ koy ful boo nekkee ci koor loo def ci lu baax dañ koy ful lañ la daan fay te ba nga wuurut dañ koy ful ay yoon yoon yoon moom lañuy fey ci koor gi soo jullee ci biir koor gi tosbaar tosbaar dañ la daan fay ba nga wóorul dañ koy ful ay yoon yi yoon yi yoon boo waa ko ñëw ci jàkka ji dañ la daan fay ci jéego yi ca koor nga dañ koy ful ay yoon yi yoon yi yoon ngir koor gi wa duaahu mustajab a na ak naa ak ñaanami kenn du ko delloo kon benn bu nekk ci jar na koor nee na ak ñaanam kenn du ko delloo boo nekkee ci koor loo dëgg-dëggi loo ñaan sunu boroom da koy nangu rawatina nag nga dem ba waxtu wu dog waxtu wu dog lay dog boobu moom loo ñaan yàlla nangu ko wa dambuhu maxfuur nee na bàkkaaram it dañ ko koy jéggal kon mbokk yi buñ ko limee benn bu ci nekk jar na dëkke koor te yàlla tax ay njariñam nag ci ci wàllu wér-gi-yaram du ma ci sori ndax médecine yaa ngi euh, waaye doy na ci rek suumu tasixu sallallahu alayhi wa sallam dañu suumu tasixu woor leen bu ngeen wooree wér waaw loolu euh, doy na ci ay njariñam ci ci weer booba ba fii nu ma gëstukat yi ñu ngi gis ay njariñ yu njariñu wér-gu-yaram ci koor yoo xam ne ba fii nu toll ñu ngi ciy gis te bokk na ci ci gën a neex a tënk rek tooke jii nga xam ne moom la ñuy dund tooke ndax ñun tooke dana wër fu ne li ñuy lekk tooke yaa ngi ci jaww ji pollution bi tooke yaa ngi ci ñu du ko ñu du ko ñu du ko noyyi ndox mi nuy naan tooke yaa ngi ci gàncax gi nuy lekk tooke yaa ngi ci ndax produit yu ñu ci pompe ak posen yeeg kon ñun tooke dana wër fu ne toujours tooke la ñuy jël toujours tooke la ñuy jël tooke jooju itam euh, ci ci ci ci ci ci garees garees ci garees ci lay dëkk ci lay laxoot garees gi nekk ci yaram ci lay ci lay kon ku la ëpp yaram ëpp la garees moo la gën a bari lu jël ci tooke kooka moo la gën a mm, ñàkk sens ci am wér-gu-yaram koor nag day lakk garees googu da koy ruyal koo day lakk googoo da koy ruyal da koy ruyal mooy tax yow boo dee woor li jël ci li ngay jël ci ci ci ci posan ci ci ci tooke ji du bari bu duggee seere mi du am fu mu place day génn kon loolu dong jar na di jar na koor te loolu moom bañ ko gisee bu yàgg la te ba fiin tool yi ñu ngi ci gis yeneen njëriñu koor yeneen njëriñ yoo xam ni du ma ci sori euh, médecine yàgg waaye loolu rek jëfan jal na jar na koor bu ko defee kon bu ñu demee ci taftiru saim maanaam loo dogal aji woor dogal aji dogal dogal aji woor ci woor ba ngoon jot ci woor ba ngoon jot nga jox ko lu mu lekk wala lu mu naan bado do euh, loola sallallahu alayhi wa sallam nee na man fattara fiihi saiman ku dogal aji woor ci weeru koor kaana maxfiratan li zunubihi nee na loolu day daal di dañ ko ay bàkkaar te nag bàkkaar yi bari na lool waaye boo joxub tàndarma ak ndox mu mu naan ki wooroon mu dëgge ko ñu jéggal la say bàkkaar loolu jar na bokk yi kenn ku nekk koor nga fàggu loo xam ne du bokk ak la ngay doge bu dog jotee nga jox ko wooroon mu doge ko ngir lépp luy tax mu jéggal la say bàkkaar jënd lu jafe kon koor bu jotee lépp loo mën ci jëf yu baax yoo xam ne mën nga koo di jox ko woor mu di ko doge loola bul ko sàggane ah. nekk naa itqan li raqabati yi itam nekk naa goreel ci ba ci ci baatam maanaam boo koor jotee nga jox nit ci woor lu mu doge itq lay doon ci yow ca sawara dafa lay goreel dafa lay goreel ci sawara loolu nag defe naa loolu yi jar na lu ne kon kenn ku nekk jar na ngay faggu loo xam ne lii da nga ko jox ki woor bu ko bu dog jotee mu mu mu mu daga kon itqun li raqabati yi min an naar dogloo ko woor nee na sa sa sa jot eh, lay doon ci a bu ñu yeewoon baat ci sa buum ñot di jëmee sawara tàndarma ba nga joxoon waaja mu mu mu doge ko mooy ñëw ni man kat maa da ma man la joxoon ka wooroon mu doge ko ñu daal teg ci buum da nga wàññi def àjjana loolu bokk yi jar na kenn ku nekk bu koor jotee day fàgg loo xam ne da nga ko dimbalee ñi nga xam ne ñooy woor nee na day waral it suñu borom màndal ko ca déegam boobu nga xam ne boo ca naanee duutoo màndi boo ca naanee duutoo duutoo ba bëggee tàbbi àjjana boo ca naanee duutoo mar ba bëggee tàbbi àjjana kon euh, euh, dog loo aji woor loolu rëy na am na solo nekk na it ci baatam ni mu ko waxoon bi nga xam ni kenn du du du la yóbbu sa war wax la ñun di itam benn sabaal benn sabaal boo woor ci weeru boo def ci weeru koor subhanallah sellal ko moo junni sabal yoo def ci weneen woor weer wudul ñoo bokk benn sabal boo sabal ci weeru koor mook junni sabal yoo def ci weneen woor ñoo yem jàmm yàlla ci yëpp noonu la benn boo ci def ci koor mook yeneen yi nga xam ni ah, mu ëpp na junni yoon li nga xam ne moom laa def ci kon loolu bu ko tënkee dana wane ne koor Euh, euh, lu ci waay jaar lu ci waay lu ci waay daj jaar na ko euh, bu ñu dikkee nañ ci sunu wasila muy Cheikh Ahmadou Khadim li nga xam ne ne la fonk woon koor ginnaaw bi ñu ko jàngalee nii ba noppi ak ni ñu ko daan dafa waxoon ne shahru ramadan shahri weeru koor sama bu ma sant jub ni mu koy waajal ñëpp dañ koy xam ñëpp dañ koy xam moo ko weeru gàmm mu suñ ma sant jub ni mu koy waajal ñëpp dañ koy xam ci la daan ëpp ay gan ndax gan yi dañoo xamoon ni ñaari weer yooyu saa su ñëwee sëñ moom jëmaal nga fi fekk ba ba weer wi loo fi sakku am moo tax weeru koor li ci daan ak am ciy gan ak weeru gàmm li ci am ciy gan moo ëpp li ñu daan am ci gan yi naata gan naa ñëpp am na dañ ko boole ko ta seetali barab yi ñu gën a buub barab yi gën a barab yi mel na daal kuy teeru kuy teeru ci ci ci ci ci ci ci ci nun ñi rek day mel ne koy teel a buur àdduna ni ngay def ni ngay waajee noonu daan waajee euh, euh, weer yi ci xeeti ay ñam xeeti ay bernde ci xeeti setal ci xeeti rafetal ci xeeti euh, mbégte noonu la daan noonu la ko daan waajee ba egg seen nag kër jëpp yaareem kër jëpp seen àdduna jëpp yaareem ci dàqoon ko àdduna jëpp yaareem ci dàqoon ko loolu dafa naa boobu yàggul sax mm, mm, fis na lu bari yaram lañ daan a ci ndax li nga xam ne ni la sëriñ bi daan def koor loolu moo fa moo fa moom la fa bàyyi ginnaaw sëriñ Bachir du ko dundal ginnaaw ñu ko fa dundal ba fii ñu toll xéewal yee bari jot amatul waaye ba fii ñu te noonu te noonu moo ko fa defoon nga xam ni xéewal yi moo ko daan doxeel boppam comme ni mu daan ci guddi gaa guddi gàmm nga xam ne xéewal yi moo koy doxeel boppam woo ñu mën a woo xel leen jox leen tàndarma xel leen café ñu ñu dog jox leen ñam yu teey yoo xam ne moom di ko jëfandikoo ñoom ñu baax laan togg yoo xam ne la fiy teg di ko jox gan ñi ak ñi nga xam ne ñoom lay ñoom ñoom moom du ko jëfandikoo moom bu guuxee kaasu ataayam bii ci kanamu nit ñi wax leen lim leen di wax bu duggaatee ci biir mën naa am ay fani fani fan dara du dugg ci gémmiñam te lay dugg ci gémmiñam lëf ci baraay lay doon wala laax laaxu daqaar buñ suukaru te ñaare bu ko toggloo bañ defar ko ba noppi buñ jël seen ndab la dañuy fekk rëddiitu baaraam rëddiitu baaraam lañ cee fekk ca xam ne saa su wooyee nit ne ko dama barkeel soleil bu demee loolu am na ci fekk ñu mel ne ma nit mucc ni ñaari baaraam mu xam ni fii sëñ bee bi laa doon loolu loolu lay xam ne laa loolu lay xam ne laa waaye junni boppam moom koor ku dëkk woon daa iman danaan dog sunnaam danaan dog sunnaam danaan dog sunnaam waaye doleeg duun am kooku euh, du doomu aadama am na loo xam ne sax du du du du ñi ko xamoon rek ñoo ko ñoo mën a xam ci loolu ñu ko xamoon loolu moo moo tax ñu gëmoon ko façon gëmin woo xam ni gëmee su ko doomu aadama ndax liñ gis mu di ko dund doomu aadama du muy dundee ñoom ña jooñ yoo wala ñoom ñoo xam loolu xam nañ ni kii ni muy dundee doomu aadama di muy dundee ko mën a tuddee amul nuñ ko mën a tuddee doomu aadama ndax sañun ni yàlla la sañu sañu ko wax tey duñ ni malaaka ndax malaaka mënul loolu malaaka moom mooy dañ ko digal képp malaaka moom su jot dong la mën ba addunay tukki mbaa mu rukkoo dong ba addunay tukki mbaa mu taxaw dong ba àddunay tukki mbaa muy yanu aras ba àddunay tukki mbaa muy sàbbaal ba àddunay tukki lañ ko lañ ko lañ ko digal rek la moom waaye koo xam ne mbooleem xeeti jaamu yàlla yi malaayka yi mbooleem xeeti jaamu yàlla yi ah, awliyaa yi mbooleem xeeti jaamu jaamu yàlla yi ah, lambiyaa yi mbooleem xeeti jaamu yàlla yi nit yu baax yi yëpp da koo dajale di jànkoonteeg moom benn bu mu ci jël dana ko defee noo xam ne ni ñu ci raw ñi ñi ña ko gën a man mënuñu koo defee noona loola moo jaaxaloon ñi nga xam dafa taxoon ñu tudd ko tiimaan tiimaan it moo ko tuddee boppam ndax ko lii ti mujizatun taaxarat wa xayru xayraatin ladayka duxirat loolu firnde lu bëri ci aw dëkk ah jaaral badi ajaban lil kaw nii kon ah, lil kaw nii kon loolu firi na lu bëree bëree bëri ci melokaanam ndax suma lépp ci kiimaan yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam yi mujj ñëw la ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam daan dund lépp kiimaan la mu daan dund lépp kiimaan waxtu wu nekk muy def ni muy def ci kër mu nit ñi loo xam ni kenn doo xam léegi na ndax yu ndax yu yéene nee na man nag sama jëm ak samay jëm benn la ci yooyee kun di yetti mu'jizat mutaaxir loolu defe naa sëñ bi mbokk yi firi na sëñ bi kon day mel sama kàddu gàtt na sax waaye fan yii yëpp dama xaw a xaw a jalaati ba jàppoon naa sax na tey du ma ko def ba joxoon naa sëñ boo ngàtt waaye comme moom sama kilifa la mu ne ma daal jéemal rek jéemal loo ko def bu ko defee li ci des ñu mottali ko moo tax ma jéem ci lii euh, kon ñoo ngi si dund yi ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu